dama ni alaaji alaaji kañ ngay am jom baay xew jàmbur yi nga topp di wër. 1500 manqué 1500. 1500 moo la lan. manqué ma tax alxuraan ko rek. sa digganteeg yàlla. waaw mais ñamaxit ngir yàlla waxal ma. waxal seen 1500 manqué ma tax 1500. non kañ ngay tax. bu bu ngeen fàttali tax. 1500. waaw suñ naa la jox junni. 1500 euros. 1500 lan. euros yow mooy la yow doo wax wax ji mu leer nga naan 1500 euros. ah mais yaa xam rek. ah mais boo nee 1500 kay dañuy xam rek. mu dem yaa xam rek 1500 mu manqué. 1500 moo la manqué mais tey naka nga gënee bés bi tey. waaye sant yàlla ah sunu xarit la. waaw euh, sunu xarit la sunu sunu lépp la. waaw bu xewalee tuwarikal la. Uh-huh. moo jaar la sant de la nation ñëw wuy si ko. Uh-huh. Ah, voilà uh-huh. Mar. waaw ba Dakar. te ñëw taxi. man nag euh, moom nag man ma lu ba fii. Mar dama doon làqu nag. te fii sama koñ la sama koñ ngi sama kër nijaay fii laa fii yaroo hmm. fii gi laa yaroo mais xam naa rumbalaat di ko def waaye sant yàlla comme que on l'a fait di ñaan si barkeel bokk sëy ñu tax ci aras sama xol seet na lool wax yàlla euh, lii la yàlla bëgg lii la lii bëgg lii la lislaam santaane ñaan ñu ànd ñaan ñaan nañ yàlla ñu ngi taxante waaw waaw voilà yow kañ lañ lay takk wala yow kañ ngay takk léegi ma matal 1500 nga manqué incha allah rabbi léegi nga matal léegi ma matal 1500 mu manqué. amal jom xew bu ne yaa ngi fa. xew bu mais sant su may matal di tax 1500 mu manqué mu koy matal ma di tax. su ma ko ah léegi léegi su ma ngi xëy gis ma tax. Hmm. incha allah 2023 bi jeex na 2024 bi lay wax. waaw di leen wax ni euh, heure ménage yi ñëpp yéen ñu dugg si euh, dugg si alhamdulilah alamin euh, voilà.

Aïcha mon frère. Euh, maa ngi lay siyaare maa ngi siyaare El Hadj kontaan bu baax di la wax heureux ménage. Ah, merci ci nga xamante ne tey bésu mbégte la. merci beaucoup euh, nuyu naa la bu baax la. maa ngi lay fay bu baax a baax a baax. <laughs> tey yëg-yëg bi lan la. waaw yëg-yëgu mbégte yëg-yëgu bànneex ndax wax dëgg yàlla am soxna. Mhm. wax dëgg yàlla xewle aussi ñëpp def déplacement dérangement ñëw euh, amaana defoo leen leen loo xamante ni moo tax euh, ñu lay ñëwal loolu rek déjà sant yàlla la di wax ni si tamit maa ngi euh, gërëmaat sama waa group plus précisément famille sénégalaise groupe Pikini production parce wax dëgg yàlla bi ma leen gisee tey dafa am sama xel dafa sori dafa am lu bëri loo xamante ni wax dëgg yàlla dund nañ ko man ak ñoom te bu ñaawoon amaana du leen fi gis kon wax dëgg yàlla boo nekkee si àdduna ama ak ñëpp jàmm. Mm-hmm. ah séqal ak ñëpp jàmm. Ah, en tout cas wax dëgg yàlla sama xol sedd na lool macha allah. Uh-huh. Mm-hmm. Uh, lan moo uh, lu motivé Mar xas yi métti wala parce que. non non pas xas pas xas parce que dama jàpp ni àdduna boo ci nekkee. Uh-huh. Uh, du diw dafa def lii rek dama war a def lii. dëgg la du nit ki dañ koy xas rek damay def loo xamante ni mm-hmm. waruñu ma xas déedéet boo defee noonu da ngay juum. ndax lépp lu mën a xew ci àdduna rek yàlla tudd na ko démb tey soog a ñëw. kon lépp lu ñuy wax wala lépp lu ñuy def rek day doon loo xamante ni lu ñu natt la ba xam ni lii fii la ñu doo ko def mhm. euh, def loo xamante ni nag jotul rëccu rëccu rek moo ci tegu mhm. xëy na nag tey la ko yàlla dogal euh, di ci santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax mhm. di delluwaat di sant yàlla bu baax bu ngeen gisee kii ma taxaw ak moom kii Khadija la tudd su ma lépp la moo tax ba ngeen ma woowee ma ko kaay foo ma xëcc la ba wan Sénégal da sama xarit la mhm. sama lépp mhm. moo tax ma sañ koo indi daw ma ci dara parce que wax dëgg yàlla man li may def lépp dafa dafa dafa mhm. amul lenn lu may daw man ku may kafal séq ak moom demalante séq ak moom dikkalante c'est parce que am na fu ma ko teg moom it am na fu ma teg moo waral loolu euh, lii nit ñi di wax nag wala lii nit ñi di di di imaginer ñoom la concerné mais fii ku fi dee ak sa bàmmeel bu dëgg dafa am loo xamante ne nag su defee déplacement dérangement faw ma wax ndax mënoon na koo bañ a def mhm. moom ak i morom mhm. xëy na moom laa ci gën a yàpp moo tax ma xëcc ko mhm. pour mën leen a ci waa sénégalais yi ne kii suma lépp la suma xarit la hélas kii sama xarit kii sa xarit ndax kay waay loolu jàpp naa euh, takku dënn soxna bëtër parce que sénégalais yëpp moom lañ jàppoon ni tey xew bi xewam la ndeysaan ndeysaan waaw xam nga àdduna mooy li may wax rek àdduna dafa xaw doy waar souvent tamit nit kii dina xaritoog nit dañu jàpp ni mbëggeel dafa am man yàgg naa ko wax Batoor yàgg na ko wax des fois bu ma sénégalais waxee dama naa leen waaw Batoor waaw yàlla baax na daal yàlla baax na kañ nga koy takk mën leen yàlla baax na te ne dañoo xamul la ca ginnaaw wala dañoo xamul la ca biir mhm. Batoor sama lépp la li mu dépensé fii kenn xamul lu mu toll parce mhm. que alxuraan xaalis bu bëri la ma jox mhm. jox suma jabar ay takkaay lu ne jox na ko sama jabar man dama tiit Batoor li mu yàq ci xew bi ëpp na cinq cent mille francs te suba jotagul ndax suba kat bul fàtte ni euh, Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar benn avion euh, benn aéroport ak 6666 Jakarta. moom laa fa bàyyi ba may ñëw nii. bu yokk wulee nag ci diggante bi. maanaam dañuy xew. waaw dañuy xew. waaw dañuy xew. waaw waaw fii lancement la rek. waaw lii lu mënta ñàkk la. waaw suba incha allah ci kattanu yàlla. Mhm. Euh, sama mbokk artistes yi nekk Thiès ak Dakar yëpp dañuy dajaloo Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ñu waxtaanee ko rek. Mm. après ku ci nekk. Mm. Ah, ñu ñaanalante jàmm. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu ñaanalante jàmm. Mm-hmm. Euh, comme ni ñu koy waxee ngay joué ak moom lu leen marqué leçon boob noonu wala li dugg ci sénégalais yi ba sénégalais yëpp jàpp ne maar ak soxna lan la. waaw c'est parce que dafa réussi. ok. bu fekkee ni da ngay benn rôle nit ñi dem ba di jaawale ni ñaar ñi li ñuy joué dëgg la. Mm-hmm. kon ce qui veut dire que ni euh, li ñuy def réussir na di ci santaat yàlla. Mm-hmm. di waxat alhamdulilahi rabbil alamin parce que man du ma damay faral di ko wax li may faral di wax mooy dama ni xëy ndimbalu yàlla. Mm-hmm. du ànd ak maatax du ànd ak coono. ndax man théâtre jànguma ko fenn du rus di ko wax. yàgg nga ma dékk sa micro. Mhm. ma naan la boo ma waxee qu'est-ce que c'est que le théâtre xaw ma lu muy tekki. passion la yàlla teg ma loxo ma dem ba yaakaar ni man maa ko dàq ci àdduna. Mhm. sama rôle bi may joué muy Marlo. Mhm. barki Seydina Mohamed jàpp naa ni maa ko dàq ci àdduna. waxuma kenn lenn. waxuma ni diw maa ko dàq joué waxuma ne lii waxuma la laa ndeem jànguma ko ñi ko jàng ko war a mën a gën a xam mhm. waaye nag yàlla bu la tegee loxo jaam bi faw mu nangu mhm. rôlu maarloo rôle bi may joué incarné borom kër yor ñeenti jabar maa ko dàq ci Sénégal hmm? ba keneen bi ba may gisaat keneen su may wax ki yàgg na ma ko wax maar génnal ci li nga ne yaa ngi ci sa biir rôle bi damay wax ak nit sax di wax normal quoi mhm. mu ne ma yaa ngi joué alors xëy dafa dem ba loolu nekk ci man. dafa nekk ci man dugguma kon nag dañuy sant yàlla. Mhm. di xoolaat leneen wala beneen facette. ñàkkuma koo mën ndax man ci comédie laa démarré. Mhm. su ma defee comédie da nga naan kii du Marlo. bien su ma su ma su ma defee rôle immature da nga naan kii kii kii daf ñuy trompé kii du Marlo. Mhm. te moom laa gën a mën lu man neex laa def. su ma waree sérieux damay sérieux. su ma waree euh, doon kilifa damay doon kilifa loolu ndimbalu yàlla suñu borom loolu ndimbalu yàlla suñu borom la madame nag lan nga koy wax. waaw madame day wax dëgg yàlla ndeysaan moom moom moom dafa yaru. moom amul benn problème bi mu gëjee Sénégal yàgg na sa fait vingt quatre ans ñëwul Sénégal xamu fi dara xamu fi dara. te moom mooy li may wax sànq nee na di ñu ne cëpp aéroport. ma dugal ko ci oto indi ko kër ga demal nga jàpp julli ji laa ko njëkk a wax ndax man ci loolu lañ ma yàq xaw ma man cest à dafa am loo xam dafa ñaaw mooy tey ji nga am sa jabar indi ko sa kër waxtu julli jot nga dugg ci duus bi jàpp ba set di julli nga bàyyi ko ci kaw kawlal ba muy sinabak ak def def tiktok loolu bu yóbboo nga xoolaat sa bopp moo tax dafa wàcc takk ma ne ko nii lañ nii lañ koy defee nii ak nii lañ koy defee nii ak li ñu koy defee parce que dara xëy sotti xëy na vie bi mu tàmb à l'extérieur ak bi ñëwee Sénégal wute na kon nag dañuy def ndànk ba jéem a adapté li nga xamante ni moom mooy suñu culture fii ci Sénégal ni ñuy doxee ni ñuy dundee mu jëm ko adapté dina metti nag dina metti waaye nag li may gën a metti mooy du yàgg rek mu delluwaat loolu moom mooy xaw moom mooy xaw a metti waaye nag yoon yamul ci benn ku dem di nga mës a ñëw mhm. ki demagul dina mës a dem mhm. wax laa la wax mhm. ki dem dina mës a ñëw ki demagul it dina mës a dem. wax laa la wax. Mhm. hélas. Mhm. Mhm. kay waay. yàlla baax na yàlla na yàlla kàttanal rek. mu ngi noonu. kon nañ bu baax baax a baax. waaw euh, laataa maa ma waaw maa ngi lay laaj. Euh, tey lii dafa neex lii dafa neex xam nga ma gersu gis ay binom gersu gis cas isaanaar ñamaxit maxa ah, ah Serigne Bulli da ah, borom Pikini production ba pare wëlbatiku gisaat sama équipe technique famille sénégalaise ah su may su may moroomu artiste ah Bator wax naa ko léegi yàq na ci alal gudul jeex man man man ba ma ñëwee man dama jommi parce que jàpp naa ni sama xarit sama xarito ak moom dëgg la xëy na dépassé na sax loolu. Mhm. mais daf ma bett. parce que am na loo xamante ni wax dëgg yàlla su ko nit defee daf may touché looloo tax Bator li mu def ma marqué ma touché ma di ko ñaanal yàlla rek li mu mën ren déwén fekk mu wees ko ci barke Seydina Muhammad mhm. ndax Bator xolam Bator xol bu rafet la yor barke Alxuraanul Karim xam naa ko. Mhm. saa su ma jotee ak moom te ci xoloo lañ dëkk ah. barke Seydina Muhammad ba nii nii nii tey la ñu doog a jubawaat non day leer tey la ñuy doog a jubóo man du ma fen mm-hmm. tey la ñuy doog a jubóowaat loolu mm-hmm. des fois damay toog ay 3 mois 4 mois dama koy mere te mere boobu yëpp xëy na man maa koy tooñ mm-hmm. barki Seydina Mouhamed waaye dafa am fu ma teg ma am fu ma ko teg moo tax des fois yooyu di am mais de billaahi wallaahi ku ko njëkk dugg ajana danga ko njëkk a dee di ko ñaanal yàlla nag na am gudd fan wér gu yaram mhm. li muy séntu ci aar aar rek la bëgg mhm. batoor ku koy ñaanal ñaanal ko sax aar bi li ngi ci bëgg aar ak yaayam batoor aar ak yi way juram bu jigéen non fi mu leen teg fi leen teg fi leen teg mar détail moo tax da ku koy ñaanal ñaanal ko yaayam gudd fa mhm. nga ñaanal ko moom aar bi mu nekk mu tekk ci ba yóbbu yaayam mag lii rek laa koy ñaanal te yàlla na ko suñu borom def ci barke Seydina Muhammad jërëjëf jërëjëf jërëjëf suñu xew frère Marlo yaakaar naa ni boobu ba léegi ñi ngi gis ay ndaanaan ñi ngi gis artiste bu nekk waaye ñu tax ak ki nga xamante ni moo di suma frère Cheikh Omar sëñ Bulli waaw maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sama xarit bi. Uh-huh. di la bëggee di am kontaan ak mbégte ci jàkkaarloo bi. waaw. waaw di wax ne du gulet ndax yow moom fu ne lañ fay tase. dëgg la gis ko ne bu baax. bu gore. boo mm. xam ne te liggéey moo euh, ko ñu sonn ngir ñoom di ñaan yàlla xol la ci laaf la fi yàq yi hmm. tey maar moom woote de waaw xanaa xas yee métti waaw maar moom xam naa ne xas yi moom métti lool macha allah eh. mais xam nga rek euh, loo gis ci àdduna dafa am àpp eh. dañu na yàlla na mu war na hmm. lu nu yàgg la jot na lu jot yomb te li nga bëgg ak li yàlla na mu suñu bokk daje gëmal li nga bëgg topp la yàlla na mu ndax lu yàlla na mee jàmm bi na mu la yàlla na mu mooy taxaw eh. kon xëñ na tey la yàlla na moon affaire bi tey la ko yàlla dogal bal tàkk na kuy ñu amagul soxla la ñuy góorgóorlu eh. dinaa ñëw ci yéen mais tey ni ngeen dugg see soutenir ko wan ne tey seen xarit bu ngeen fas soxla dugg si bi loolu la xam nga ñun eh. euh, lu ñu def daanduru lool lu ñàkk eh. fayda te am fulla te kuy dem di bëggal askanu lu mu ñu di la fay boo xewlee war ngaa bëggal sa bopp moo tax ñu ñëw wàccewaat suñu bopp àndandoog waa koñ bi feccal suñu jabar kaf ak moom ak ree parce que loolu moo ñu war ci moom mm-hmm. ndax loolu la ñu gisee ba bëgguñu ba topp ñu kon boo ñu xewlee ci lu ñu mën muy suñu métier muy humour danañ fexe ba bëggal ko ci bëggal ci askan bi ba ku ne kontaan. Mhm. suñu paree delluwaat suñu caractère. Ah. Ah, xew yi ngeen di wër bëri na trop trop trop. sûrement mhm. kan ngay woo Sénégalais ñu ñëw. waaw man moom yàgg na xëñ na sama xew dafa jiitu ah sama siiw. Ah, xew nga ba pare parce que man euh, def naa presque vingt ans de mariage. yàgg naa ñu bari kaar macha allah def naa benn temps de mariage di ñaanal sama jabar yokk ak ndam ndax jàmbaar masta toxu masta randu masta tas mosuñ maa laaj lu ngeen jot maa ngi waajal su ma ne ko mën na maa takk incha allah dinaa takk deuxième femme quoi social moom baax na. Eh, atia. mais su ma amee ku mën a takk. Eh. incha allah mu ño waxtaan ak sama mbokk ñu may ma. ah deuxième femme daal mooy takk si. waaw loolu daal laa bëgg ku ma takk si quoi. ayca ayca mais kontaan nañu. ma lay laaj bii tey noo maarloo bisam bi. waaw sant rek bisu mbégte la xam nga ñun ay porteurs euh, de voix lañ euh, dañu jàngale ñun si jàngale bu xewlee dafa war a nekk exemple comme dafa simple dal parce que jamono neexul parce que jamono bi dox da nga dox di ànd moom. wala ñu ñu def ko témp témp lépp solo mooy sañse jekk nit ngi lekk na nañu naan nañu euh, décor bi rafet na macha allah comme ku gis xam ne def nañ tax dara mais ni ñu ko defee artistiquement mooy lépp solo mooy indiwuñu ko mbaay bu bari indiwuñu mbaay mais ñun ñu ko nañ ko suñu bopp loolu mooy lépp la moo tax sëñ bi 2024 loo ñuy jox loo ñu war a indi waaw 2024 bi euh, ñu ngi préparé ñaar mooy benn bi mooy du man ñu koy pare ak euh, waa Pikine production ak Aliou Ndiaye. Euh, Njabar aussi ñu ngi koy préparé waat ak waa Event Pro la di Ibou Gueye euh, mais actuellement kër budget bi ñu ngi ci tàbbi nañ ci ci séquence bi ñu mujjee def ak leena waaw ñëpp teg nañ seen bët xëy na am na yeneen yu war a ubbeekuwaat ay parenthèse yu war a tijjeekuwaat incha allah waaw ñu ngi pare daal ay affaires. Uh-huh. jaajëf mon frère kontaan nañ kontaan nañ ci merci beaucoup.